الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naaw loolu tey ñoo ngi dugg saar bu bees muy suratu nisa jërëjëf jeexul woon waaye liñ ci jotaam dina doy rek ñu xam suratul nisa saar bi mooy ban saar bismillahi tabaraka wa taala waxoon nañ keroog saar bi madaniya saar bu madina la wàcc ba mu def benn aaya boo xam ne moo ngi wàcc keroog fatfu makka saar baa ngi wàcc aaya baa ngi wàcc ci fatfu makka benn aaya ci mbirum usmaan ibnu talha aaya boobu mooy inna allaha yaamurukum an tu'addul amaanaat ila ahliha waxoon nañ keroog aaya yi cent soixante-seize aaya la benn aaya lañ ciy jël tey aaya boobu dinañ ci jëlee ñeenti njàngin ñeenti mbir dinañ ko jëlee ci bopp saar bi li ci njëkk mooy fadlu haadihi l aaya ngëneelu aaya bi ñuy jël tey dafa am bëri ay ngëneel yu nekk ci bopp aaya bi bopp saar bi id kaana annabiyi sala allahu alayhi wa sallam ida xataba fi xaaja tala aaya ala imran yenent bi yenent bi yaay yeneen julli ci yenent bi ngeen dégg ñu ne yenent julli leen ci moom wala da ngeen ko bëggul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam su amoon aaja lépp lu mooy def discours balaa mu koy def day jàng aaya bi bu daan takk sëy bu amoon aaja moo tax aaya bi tudd xutbatul xaaja yonent bi alei salaa sallam daana jàng bopp saar bi yaa ayuha nnaas ba ci inna allaha kaana alaykum raqiba wa tala hadihi l aaya aydan min surati l ahzab daana ci boole aaya bi nekk ci suratu l ahzab mooy yaa ayuha alladina amanu ittaqu llah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum acmaalakum wa yagfir lakum zunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bu jàngee aaya suratul nisa ba mu jeex aaya bii la ci doon teg yi nga xam ne moo ngi nekk ci suratul ahzab am na ñu ne dina ci teg yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqaat am na ñu ne su waxoon ñaari aaya yi ba pare rek ثم يقول أما بعد ويذكر حاجته day wax ginnaaw loolu rek daal di wax aajoom li mu soxla waaw kon loolu ngëneel la gu rëy gu yonent bi saa sallam daan ubbee ay aajoom aaya bii nga xam ne moom lañ war a jël jël ñaareel bi mooy ahamiyatul amr bi taqwa dinañ jàng tey ci aaya bi ñu war a jël mooy ngëneelu digle ragal yàlla digle ragal yàlla ngëneel bu rëy moo ci nekk ndax xam ngeen ne mbooleem jaamu yàlla yi ñu yàlla sant li tax yàlla sant ñu ko mooy pour ñu am mbooleem jaamu yàlla yi nag bu saxeel dem rek zikr bi ngay def bu saxee dana yóbbu ci taqwa déglu gi ñuy déglu dal bu saxee ci ñun daf ñu yóbbu ci taqwa julli bi ñuy julli bu saxee ci ñun daf ñu yóbbu ci ragal yàlla koor bi ñu génn barki démb bu saxee ci ñun daf ñu yóbbu ci ragal yàlla mbooleem jaamu yàlla yi mbooleem nag bu saxeel dem rek dégg dëgg boo ko defee ñu la ko yàlla sant daf lay yóbbu ci taqwa loolu laa def fan yi loolu laa ko yóbbu ñoom gën laa fàttali fan yi école laa def da ngaa yëppoon ko li lay wan ne mboolem ibaada yi daf la yóbbu ci ragal yàlla mooy yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun kon ibaada yi lu mu la yóbbu mooy ci taqwa léegi nga ñëw par benn wenn jëlal xaj fa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa jëlal tabas lan yanaala allaha luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa minkum jëlal jàng quran xudu ma ataynaakum bi quwa wadkuru ma fihi laallakum mboolem ibaada yi mboolem bu sa xel dem daf la yóbbu ci taqwa mboolem yëpp aaya yaa ngi ñëw daf la yóbbu ci taqwa moo tax ngëneel la gu rëy ci borom bi tabaraka wa taala sant ñu nan ko ragal importance bi ragal yàlla am ci aaya bi ci saar bi ngay xam ne importance ragal yàlla dafa am solo mooy yàlla daf ko ubbee tëjee ko ci benn aaya bi yàlla wax nañ ko ragal ñaari yoon yaa ayuha nnaasu ittaqu rabbakum wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arham yàlla dafa ubbe nañ ko ragal tëje nañ ko ragal loolu mooy wane dafa am important waaye mbokk jullit yi ñaareel bi mooy li ñuy jëlee ñetteel bi ñuy jëlee ci aaya bi wujubu silatul arxam wa xurmat fatxiha ngëneelu jox mbokk ak araamal bi ñu araamal kuy jox mbokk moo tax gis nga aaya bi yonte doon ko jàng ci sëy te sëy philosophie bi lan moo tax mu jóg jox mbokk moo tax ci aaya bi yàlla yonente bi di jàng ci sëy ñu wax ci ne dagg mbokk araam yi te xoola sëy bi buñ koy takk ñan ñooy ñëw mbokk yi ay délégation ñuy ñaan délégation ñuy maye délégation àndandoo yi xarit yi mbokk yi ñëpp ñëw ñu jàng aaya bi ne leen yéen nit ñi ñu naa ñu na ragal leen yàlla sëy bi ngeen di tax ragal leen yàlla aaya bi di jeex ñu ne wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiba jokk mbokk dafa am importance comme say mbokk tax mu jóg looloo tax sa sœur araam ci yow parce que sa mbokk la ba pare ñu nekk fële ca ñokka la koo baa xamoo ko xamula nga gis ko indi ko mu yokk mbokk ay mbokkam nekk sa mbokk sa deret jaxasoog deret ci mbokkam loolu sëy jafe nga jël sa famille sa doom yi sa sëriñ nga jël leen waaye ñooñu say mbokk lañ ba pare bokk nga ak ñoom doo romb fii mukk kenn di toroxal sa sœur nga romb ko dem wala yëpp ñu ne la bu ko takk de nga dem jëli keneen koo xam ne lu sori distance amaana sax yenn saa yi di ngeen bokk laaj amaana yenn saa yi di ngeen bokk xeet ñu ne la dencal fii ndax mbokk bi yokk loolu ngëneel la koo xam ne dinañ ko jàng tey ci benn aaya bi nekk suñu kanam ñu war ko jëli ñetteel wujubu silatul arfa boobu lañ jëloon ñeenteel mooy muraatul uxwa al basariya bayna annas wa atibaariha fi l muamalat danañ jàng tey ci suñu benn aaya bii ne dañoo war a sàmmoonteeg loolu tubaab bi naan humanisme mboolem doomu aadama war nga kaa ëmbal yërmande ëmbal ko cofeel mboolem doomu aadama muminuhum wa kaafiruhum jullit ak yéeféer a yam moo tax léeg-léeg da ngay gis léegi ay imaan nanu yàlla baal suñu koy def suñ bundee ay jullit day du lislaam suñ bundee ay jullit ñun jàpp ne jullit yi juum la rek islam santaanewul ñuy def ci doomu aadama barbaar maanaam jàpp doomu aadama tëral ko takk loxo yi takk tànk yi jël paaka di ko rendi ñun bu dee yéeféer yi lislaam waxul loolu loolu jullit bu koy def dañ jàpp ne jullit bu juum la rek ndax mbooleem doomu aadama ci kaw suuf jullit ak yéeféer dañ laa wax nga ëppal nga ëmbal ñëpp jàmm parce que loolu moo tax diine jël ba leneen di xew na ba changement di am nit dañ leen war a ëmbal jàmm jullit yéeféer koo ci xam koo xamul waa ji may xaj mar naan may xaj xaj bi naan sant yàlla yàlla jégal koy bàkkaar kon ci may nit mu naan nag gëléem di daw ñëw fekk yonent bi toog muy kalaame ay mbokkam joxuñu ko mu lekk ba yonent bi solal gëléem nga robb avocat di ko lay yi ak yonent bi ne jigéen a ngi nii di dugg safara ndaw si xam ngeen lu mu def dafa jàpp muus yeew ko jox ko mu lekk bàyyiwul muus mi dem lekk ci xasaraat yi gunuur yi te muus mi dee yonent bi ne ndaw saa ngi taxaw te xaj la may ndox yàlla jéggal ko fii muus la tere mu lekk mu dem safara kon ku ko defal nit nag ku ko defal nit léegi nag rombal nit nga ñëw ci nit jullit kon lan ngeen gën caa romb yàlla moo tax dangay jàng alxuraan chaque jour joxe lekk bokk ci nit ëpp jox nit tiyaaba wa yutimuuna taama ala hubbihi yatiman ah wa asiran miskinan wa asira nga jàngaat wala yahuddu ala taami miskin nga jàngaat itaamu miskin fi yowmin fi masraba nga jàngaat lan tanaalu bir hatta tunfiqu nga def lu baax tuuti joxe lekk laaj nañ yeneen sallallahu alayhi wa sallam ayul islaami xayr qaala tut'imu taam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam ta'rif waaw yeneen diine ji li ci gën na ngay togg di jox nit ñi ñuy lekk ak lan nga tasaare nuyoo koo xam koo xamul xam nga ñun tey la àdduna yàqu rek dañuy romb koo xam dañ lay romb rek asalaamaaleykum koo xamul tey nit moo tax bokk na ci màndarga yowmal qiyaama assalaamu lil maarifa bala ngay ñuy nga xam ko bokk na ci màndarga yowmal qiyaama ci lañ toll balaa nga lii nga xam soo ko xamul soo nekk assalaamu lil maaruf dañu bëgg jullit ñu nuyoo soo rombee sa mbokk jullit yi nga nuyoo leen assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ne la wa aleykum salaam wa rahmatullah kon bokk na ci li ñuy jàng tey mooy muraaat al uxuwa al basariya ñu sàmmonte mbokkoo ak doomu aadama bi ñu yàlla mbokkale fan ci doomu aadama doomu aadama nga ci doomu aadama la da nga war a mbokkoog moom ci doomu aadama bi waroo ko lot waroo ko yàqal waroo koo bañ doonte ne nag ab yiitéer la waroo koo bañ parce que yow du yow yaay bañ du yaay bëgg mu ne muraat albasariya boobu bayna naas mboolem nit ñi wa atibaariha fil muamalaat même booy jëflanteeg nit dangaa war a respecté jëflante man dama war a jëflanteeg ci man normal su jullit la ma dem di jëflanteeg keneen parce que yéeféer la ma ne ah kii xaar ma jalkat parce que yéeféer la fan yi lu doy waar moo ma dal dama am ñaari sujet ñu wax avant weeru koor weeru koor bi di ñëw mu tàng man ah dama wóor suñu kurgóori si boo xam ne xam naa su ma wóor man de kaay defaral ma sama kurgóori ñaari mu triante ma xaalis bi ñu koy wàññi daanaka mën na dem cinquante mille ba mujj bi comme va-et-vient bi dafa bëri te dara du baax lu nekk jënd na ko daj na frigo bi daanaka léegi bay xotti ci rek man ci daal xaaral ma bàyyi ko rek noppalu am ko ne ma am na benn waay daal boo ko woowee dina ko def ma ne ko sëy dama sonn ci wax ñoo na wol kii rek moo ko ñu ngi ñëw ne ma frigo bi sama moo koy defar bu ñu xaalis bi jox ko bu fii ma toog di wax ak yéen frigo bi dafa normal xam nga la moo mi waa jox chrétien rek wala julli ñaari julli ñaari julli ñu ñëw defar sama frigo triade chrétien bi ñëw normal te xoolal dama koy woo rek mu ñëw dama koy war a ñëw lan la ma ne ko lii ak lii mu defar tey nekkuma sama kër mais dama ko woo mu def bu ma ñëwee fekk naa la ma ko doon liggéeyloo defar na ko di xoolal waxaguma lu ma koy fay mais fekk naa affaire yi ma ngay sàkk normal ñu xoolal dund ñun suñu biir dañuy jëmmante dañuy lekkante di reyante di samante ay dëmm suñ la joxee alalu jullit na nga ko defar nga sabote ko yàqate ko def lu la neex dafa ne après yow réussir ni quoi fekk boo xamul bàkkaar yi nga yoonu ëllëg yow mal xiyaam doo traversé sa tànk siraat lu dul ak jàmbur yi nga triande di ko dellu soo amul loo delloo ñu jël bàkkaar yi ñoo ñu jàll mais suñ problème yëpp loolu la te xoolal bokk ni ci sàcc yonente bi wax sooy liggéey nga rafetal liggéey nga rafetal liggéey moo tax nit ñi foofu gis ouvrier yi suñ dem lu mbir la nañ ñëw ne la ñaanal ma amul ñaan buy indi xaalis amul xam nga ban ñaan la mooy liñ la wax rafetal ko nga def ko mu baax waa ji ku ko gis ne ko waaw lu baax li nag mu ne la wool jiw su xoolal ki ma jox numéro moom tam loolu lañ ko wax bu ngeen woowee kii mu defar loolu lañ ko wax ñu woo ko mu defal ko loolu mooy ñaan bi ëllëg ci biir fii ku ma ne nangam man la wool jiw yow tamit nga ni woo ko fu waajoo ju jëm koy tekki mais ki la yàqal léegi mooy nga di nga ko joxati dara ba di nga koy wootee keneen soo ko rommee sax ku muy liggéey da ngay bàyyi ba kooku ba mukki nga ni ko kaay yow xam nga kii di la liggéey kan la kii de yow alko nga tey sax gis nga kooku ñoo ne ko yees bàyyi voilà su ko defee nag lu koy yëg mooy nga nekk ci quartier bi nekk maçon wala wala wala mais doo liggéey su tax doo liggéey xamewuñ la lu baax doo liggéey lu baax ñu naan jàng na ba qualifié mais mënta am xëy du am xëy ko normalul bu ñu lislaam di sàmmonte di wax nañu sàmmonte ak mbokk doomu aadama waaw rawatina nag mbokku jullit ak mbokk doomu aadama rek dangaa nekk doomu aadama kii nekk doomu aadama ñu ne la sàmmal loolu yow nga jalgati loolu kon soo ñëwee ci jullit bi nooy def dañ ko jalgati kon doomu ndey yi mbokk jullit bëri na ñuy wax te duñ ko del ci ginnaaw alquran bi moo defaroon yonent bi moo defar sahaaba yi wallahi bu ñu buggee baax bu ñu buggee texe bu ñu bëggee dund dund sahaaba yi dañuy dund teg ci paaret dëgg waaw suñu mbir yëpp ci coow lay maa ngi ja maa ngi déglu alquran maa ngi koy jàng maa ngi def lii maa ngi def lee mais buñ ko jàngul amul njëriñ buñ ko dundul amul njëriñ saxaaba yi nee nañ dañ daan jàng ci yonente bi alayhi salaatu salaam juróom-ñaari aaya alquran duñ ko paase ñun ñu mokkal ko jëfe ko pour dina ci leneen ñun dañu jàng bi su nekk ñu jàng ñetti visite fukki visite ci ci gën a néew dina jàng visite yenn saa yi ku mokkal téere bi yëpp nga romb fenn ñu ne la pourtant waa ji di càccoor bi alxuraan rek la mokkal xoolal loolu ko xamul lu mokkal xam ko xamul lu mu yor lan la te alxuraan ku mun ta defar dara mun la defar te xool ngeen àddina bi ñu ngi ciy topp ñëpp alxuraan moo leen defar ñëpp nag kon nan góorgóorlu ay jàng ñu bañ ko yemale rek ci jàng ci barkeelu nangam nangam neexal baa ji respecté ahkaamu tajwid c'est bien beau mais amul njëriñ bu fekkee ci loolu lañ def tey benn aaya bi lañu jël wax nañ ne saar bi madinatu munawar la wàcc lu dul benn aaya aaya boobu màkk la wàcc di ci fàttu màkk te buñ ci yeggee dinañ waral dinañ wax histoire aaya boobu aaya baa ngi wàccoon ci mbiru Usmaan ibnu Maazun Usmaan ibnu Talha Usmaan ibnu Talha aaya bi ci moom la wàccoon saar bi aaya yi cent soixante-seize aaya la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بعد جناو بسم الله الرحمن الرحيم كمل الشر يلا moom yàlla moom nga xam ne moo tax yërmande ci àdduna mu jagleel jullit yi yërmande àllaaxira mbokk yi ab jullit lépp lu muy def da koy tàmbalee ci turu yàlla lépp looy def say wax say jëf day tàmbalee bismillah moo tax gis ngeen askaar yi li ci ëpp booy wax askaar yi foog mu am bismillah booy tëdd looy wax bismika allahumma amutu ala gis nga am na bismillah booy dugg ci biir looy wax bismillah allahumma inni jëf nga am na bismillah booy génn sa buntu kër looy wax بسم الله توكلت على الله لا حول إلا أنا بسم الله boo yëg ci oto lay wax bismillah boo toogee ba ci fëte yi nga wax subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu musrinin wa inna ila rabbina sooy sëy sa soxna lay wax bismillah allahumma jannibi shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana allahumma jannibni jannibna shaytan loolu yëpp day am bismillah mbooleem looy def day am bismillah booy jàpp booy lekk bismillah booy sol bismillah looy def day am bismillah bismillah mooy lan maa ngi barkeeloo maa ngi tàmbalee ci tur yàlla kan arrahmaanu rahim ci tas yërmande ci àddina ba ñëpp xëj rahmaanu dunia rahimil axira firi woon nañ bismillah ci suratul baqara firi woon nañ ko ci fatiha ci delluwaat ci enregistrement yi ko teg ci bismillah ko yaag borom bi tabaraka wa taala mu ne yaa ayyuha nnaas yaa xarfu ni daala xarfu buy woote la day woote loolu la tukuloo yi naan ko naan erango erango ñun ñun ñu ay tëgg ñu erango erango mooy lan erango alla ina ero mooy ee loolu mooy yaa ayyuhan naas yaa yaa bi mooy ee kan moo woote yàlla ñan lay woo annaas nit ñëpp jullit ak yéefee albasar mbindeef yépp la yàlla woo kenn ki mooy annaas mu ne bu fekkee baat bi kese la mooy insaan lan moo tax yàlla woo ñu ci baatu naas insaan mooy kat yi yaa ayyuhan naas ee yéen mbindeef yi waaye baat bi dëgg dëgg lu muy tëj mooy fàttekat yi ee yéen fàttekat yi parce que dañoo fàtte lan moom lan moom indi woon ci kaw suuf dañoo fàtte li tax yàlla bind bi moo tax yàlla xoola alxuraan dañuy wàcc yàlla waxul yaa ayyuha allazina amanu lan lay wax yaa ayyuha nnaas ba am imaan amee léegi yàlla commencé yaa ayyuha allazina amanu biir alxuraan amul yaa yoon naas yaa yoon lazina amanu yaa yoon naas rek moo am amul yaa yoon lazina amanu su boobu amul ñu gëm biñ demee ba am ñu gëm nag yàlla commencé ñooñu mu gëm mu naan leen lii ak lii laa bëgg ci yéen fi yaa ayyuhan naas ay yéen fàttekat yi moo tax doomu borom xam-xam ne al insaan mahallul nisyaan yi fa inna awwal an-nas awwal an-nas ñoo ko tafir nag doomu aadama mooy magasin bu fàtte ak gaaw ak fàtte doomu aadama laa ilaha illallah te li muy fàtte yëpp li ci gën a garaaw fàtte mooy fàtte digganteem ak boroomam digganteem ak boroomam xef ak ci fàtte na ko parce que lan day jàpp ne digganteem ak borom moom amul ci intérêt kon garawul non dama bàtte ko digganteem ak mbindeef yi nag koo bàyyi intérêt ngi ci du ko fàtte mukk da ngay dégg waa ji enregistré ko ci portable def ko ci agenda ne jabaram fajar yéema de xol bi day dem balaa may tardé waaw rek la montre bi rek la réveil bi rek la portable bi ba pare ne yée leen ma est-ce que julli waaja dina def loolu kan ci ñun mooy régler julli montre réveil portable ba pare ne sa jabar sa yaay papa yaay yee leen ma fajar de bal ma dem jàkk kan ci ñun mooy def loolu waaye buñ la nee vol bi day dem foofu ñu ci onze heures suba lay commencé leen bon yaay nag ma yëg mu ne déet rek la wax wax ko ay da nga ni ma wax naa ko ko rek naa montre bi sax portable bi mu dina dina ma abal rafet bi encore ma tëdd sama bon am na ñenn ñoo xam sax mbokk bi nee na am na ñoo xam du nelaw ataay ataay bi def nañ ñeew nañ ñeew nañ ñeew pour lan bañ a fàttali ah allah yàlla nag ndeysaan yàlla moom ndeysaan da ngay tëdd di nelaw ci di sax yenn saa yi nga toog di dem yi di heure bi paas yenn saa yi nga nekk ci stade bi di heure bi paas yenn saa yi nga nekk làmb ba heure bi paas ñu ne la waa yow nga ni julli nga dama ko fàtte fàtte naa ko waaye bu fekkoon ne suñu biir la yàlla nee na doomu aadama mooy magasin bu fàtte ku njëkk fàtte ci nit ñi mooy ki njëkk ci nit ñi yàlla dafa bind aadama bi ci àjjuma mu dugal ko aljanna bi ci àjjuma mu wax ak moom bi ci àjjuma ne ko moytu seytaan mooy sa dikkul kii sa noon la yàgg sa njaboot yàlla dugal aadama àjjana ne ko gis nga garab gi bul ko jege adama dugg rek jubal ci garab gi wa laqad ahidna ila adama min qablu an nasiya wa lam najid lahu azma dafa yàlla ñu wax ak moom rek sàmm mooy ñun ñi tajur yàlla wax ak ñun waaye fàtte rek ak nekk ci lu ñu neex bal sax fàtte wu ñu may dañuy fàtte fàtte ñu fàtte fàtte ñu mi ngi mel ne xam nañu dañuy dee xam nañu ko dee wala xamuñu ne dañuy dee sant jàpp gi moo dul dee yëkkati ko la kon xam nañ dañuy dee waaye faal dañ koy fàtte fàtte lu fàtte fàtte lu dee te leer na nu dañuy dee te leer lan ne bu ñu deewee dañuy yóbbu ci armée yi suul yi te leer lan ne bu ñu suuree dañuy dajeeg yàlla dafa la ñuy fàtte rendez-vous bu mag boobu kenn ci ñun bu amoon rendez-vous ak Macky Sall ndax dina ko fàtte di leen kenn ñu fi bu ne da ngay am rendez-vous ak Macky Sall ndax di ko fàtte ñu téléphoné ne la décembre le premier décembre président daf lay recevoir ah oui nga ne non oui mooy ah incha allah léegi léegi ñu ngi commencé à préparer allay préparer léegi ñu koy commencé à préparer ñaata weer a ci def ñoo ngi ci lan lu ci tegu septembre lu ci tegu octobre lu ci tegu novembre lu ci tegu ñeenti weer forum rek nga te yëg nga sama audience ñu ne la man am nañ ko dañ lay recevoir. kañ décembre allah wañ na la fan ne ni ko pale mu ne texe nga saa waay texe nga ndeysaan waaw mbokk yi ñun ñi sa yàlla dunu recevoir wallahi bala kañ allahu alam waaye dina ngi ñëw danañ wéet ak moom dundum ci suñu bàmmeel amul kenn ku lay gunge yàlla recevoir la ne la yaa abdi yaa abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauuk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu alladi laa man ñu fàtte loolu di di préparé audience yu ndaw ndawaan yi nekk ci suñu mbiru di fàtte fàtte lu daje yàlla te leer nañu ne leer nañu ne guddi na bëccëg na yàgg na gaaw na wér nga feebar nga mag nga ndaw nga di nga dajab yàlla wa ma antum bi mu'jizin kenn ci yéen du rëcc yàlla mu ne amul kenn kuy rëcc kenn du rëcc waaw waaw ni ma leen binde woon noonu ngeen di dellu ci waate ci ma sundum sans yére kenn ci yéen bu muy judd kan ma ko soloon mbasin su ñu soloon jiin kan ñuy jub dum bu ñu demee àllaaxira dum laa taxfa minkum xaafiya kon war nañu wàcc daje yàlla bañ a fàtte yaa ayuha nnaas yunaadi ar rabb tabaraka wa taala ibaadahu bi lafzin aam yasmulu mumin wa kaafir borom bi mooy woote ar rabb ar rabb mooy ci yar nit ñi ci leen moom ci leen tàgg ci leen bind mooy baatu rabb ci suratul naas dangay fekk yàlla mela mela melal boppam ñetti baat yu bokkul rabbin naas malikin naas ilaahin naas waaye rabb moo gën a rëy rabb mooy ki moom yar dundal sàmm toppatoo mooy rabb baat boobu lañu yàlla woo fii yaa ayyuha nnaas ee yéen ñi fàtte li taxoon yàlla bind leen ngalawaay ittaqu moytu leen kan rabbakum seen boroom mooy baatu rabb bi rabbil naas rabbil alamin ittaqu rabbakum xaafu an yusiibakum ragal leen mu dal leen musiba bu ngeen jaamuwul seen boroom kon nag na ngeen góor-góorlu ngeen moy ci amri bi ci ay ndigalam wàccani bu ngeen moytandiku nax yi ay tereem loolu mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy lan imtisaalul awaamir mooy jàppal ci li la yàlla sant mooy tandikul li la yàlla tere loolu mooy ragal yàlla ragal yàlla du du du ngeen yaakaar dafa rëy su saa ju ne duuf ku ragal yàlla la nga koy xoolaat di xool yëre bi wala ngay xool mbax na bi wala ngay xool kaala bi wala ngay xool tubéy bi wala ngay xool dàll yi ragal yàlla nekkul foofu boobu de yonte bi ma ragal yàlla fi mu nekk lu mu wax ak taqwa haahuna fa asaara ila sadrihi ñu ne fii ragal yàlla nekk ci yére de ci la yére yi nag nekk ci kaala yi nekk ci mbax na yi nekk ci sikki yi nekk ci kurus yi nekk ci melokaan yi ragal yàlla nekk ragal yàlla mu sikki dënn wala rek moo xam ci boole ittaqu rabbakum ragal leen seen borom moo tax yàlla mu ne rabbukum aalam bi maa fi nufusikum man yàlla maa xam li nekk seen bopp wala tuzakku anfusakum bu leen setal seen bopp li ci aaya gi tegu huwa aalamu bi man ittaqa gis nga baaye ba aaya baa nga bu fi nekk naan man ragal naa yàlla man déedéet bul seedeel sa bopp yàlla moo xam ndax ragal la huwa aalamu bima yàlla liñ la sant mooy nga def defal li la yàlla sant bàyyi lim la tere bul seede ci nit ñi waaw ndax yàlla moom na la doy seede na la doy ne yàlla tabaraka wa taala xam na ne yow ci jaamam ñi nga bokk ragal nga ko su nit ñi ne diw jaamu yàlla la ndeysaan am na benn fer mais li tax nelawatuma guddi li tax nelawatuma guddi dama daan jaar ci mbedd bi su ma rombee rek ñu ne seex baa ngi ne la diw la moom de du nelaw guddi day julli rek te mu ne man dama daan reebu tëdd rek reebu tëdd nelaw ko set ñu ne salaatu ma jàpp dem jàpp mu ne léegi ma jaaree ko léegi ñu ne kii di nelaw guddi te man damay nelaw ba sonn ñu ne xoolal ñu may seedee lu nekkul ci man kon war naa jóg sama bopp ci la bàyyi nelaw guddi ñun ñoom noonu la ñuy def yéen ñii da ngeen may gis saa sa gi nii macha allah nga xam lu ma nekk waaye allahu alam man tamit noonu laa mel ci yéen ku nekk da ngay rafet njort rek lii bu baax la loolu nga yaakaar yal nañ ko yàlla def ndeysaan benn cheikh saa yi dafay conférence ba pare day wax yàlla bu ma yàlla def pont am ngeen pont pont am ngeen pont mooy la mooy ku ñuy jéggee mu ne yàlla bu ma yàlla def pont nit ñi di jéggi ci man dem aljanna man ma dem safara maanaam ñun ay pont lañ ñun bu fekkee duñ góorgóorlu dem àjjana ñun ay pont lañ parce que ñii dugg àjjana ñun ñoo leen di waar pour ñu dugg àjjana ba pare léegi ñun ñuy waaraate bu ñu demee safara nag yàlla bu ñu yàlla def ay pont nit ñi di jéggee ci ñun di dem aljanna ñun ñuy gàddu safara yàlla bu ñu ko yàlla borom bi nee na yaa ayyuhan naas yéen nit ñi ngallaawaay léeg-léeg yàlla wax ak ñu ay termes yoo xam ne bu toogoon a ñëw danaa la ngallaawaay waay waay waay waay yëpp ni wala suma jaar ak yoo rek wala li ma la defar rek ah ittaqu rabbakum te gis nga yàlla saa yu ñu waxee nañ ko ragal wala mu ne nañ ko jaamu daf ñuy wax lu tax sa papa ji ci biir kër bi bu lay wan ne sa baay laa ginnaaw maa la jur après lu muy wax yow xam nga ne nangam yow xam nga suma jaar ak yow soo xam nga say étude maa ko fay yow xam nga bu leen nit ñi yow xam nga yow xam di la limal li mu la defal allah yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum kan di la yàlla ne rabbakum seen borom ba pare mu ne alladi xalaqakum man yàlla maa leen bind kon koy xalaat ne am na ku am na ku fi nekk ku la defar dara koo war a di di jooy di yuuxu di raam di liggéey di ko jox di dox doxlu ci moom di dee ci moom ngir ah ñu naan la yow yaay nangamu diw yàlla gën a yey ci loolu gis nga tey da ngay ay doomu aadama yoo xam ne da ngay dégg ñu ne diw dafa bëgg diw dafa seey takk dafa jeex ci moom dafa takk loolu yàlla ci yàlla la booy seey da ngay seey ci yàlla ñii nit ñi di dox doxloo tey ci ay ay sëriñ ak lu ma xamul ci yàlla la ngay kon yàlla lu mu la wax nee na allazi xalaqakum man yàlla maa leen bind kan moo ñu bind wala am na keneen ku ñuy bind biñ yàlla di bind kooku nga yaakaar wala ñooñu ñu yaakaar wala ñooñu ñu fonk wala ñooñu ñu topp wala ñooñu ñuy màggal bi ñu yàlla di bind ñooñu fan lañ nekkoon allazi xalaqakum yaa nee na maa leen bind da ngeen bëgg ma wax leen ci lan laa leen bind da ngeen bëgg ma wax leen lan laa leen defaree maa ngi leen sàkke min maa in mahiin ndox mu doye maa ngi leen sàkke min alaq lu mu tret maa ngi leen sàkke min nutfatin amsaaj ci ndox moo xam ne dafa formé ovule tret ak sperme dama ko joxam laa leen bind ndoxu góor ak ndoxu jigéen maa ngi leen bind ci ndox bu salte ndox moo xam ne feesul xottu gar ku mu tax sa yëre nga fóot ko ku mu tax sa yaram nga xam ndox moomu laa laa jël bind leen ko fa jaalnaahu fi qaraarin makiin ma dugal ko ci place bu am sécurité ilaa xadrin maalum fa qadarna fa ni'ma alqaadiruun naa ko denc ci ruuxu mu jigéen bi fan mu ne fii ci lu ma ci salaasa ci ñetti lëndëm daal nee na ndox moomu laa jël di ko changé étape par étape jàng leen suratu suratul mu'minuun da ngeen gis étape yi yàlla di wax fa ja'alna al-mudghata 'alaqan ah bàyyi di jeex mu ne fa kashafnaa al-'izaama lahman thumma insa'naahu khalqan aakhar fa tabaaraka allahu alhamdulillah ahsanal xaaliqiin kon yàlla moo ngi bind bind mooy lan mooy yàlla moo nu sàkk mooy yàlla moo nu defar lii lu mel ni yàlla rek moo ko def amul keneen gaa yi lan la nu yàlla bind du nee na ndox la ak deret ak yàpp wala maçon pour mu tabax lan lañ koy indi suuf ak ciment ak béton ak fer mu tabax wala ah te yooyu pour mu ñëw lan lañ koy indi wala ah mine de métal yi pour mu suude luñ koy indi fer lañ koy indi ak lu ci aju ah léegi nag jël leen ndox ngeen def ko ci paan moom fees ngeen jël deret def ci beneen paan mu nekk ñaata paan ñaari paan ngeen jël troisième paan bi ngeen def ci yàlla ngeen dem ci ku leen neex ngeen ne ko defaral nii ah war na am kat bu ñu jëloon léegi suñu suuf ak suñu béton ak suñu fer ak lépp ñoo ci benn maçon ñu ne ñu ne ko ci benn terrain ñu ne ko tabaxal ñu dina tabaxal loolu tabax ah bu ñu doon ay bant ñu jox ko militaire ñu ne daawuda defaral ñu lal dina ko defaral du ko defar du ndawal waaw bu ñu indi woon der ñu ko ci uude ñu ko defaral mu daal ah dina defar indi leen ñeneen indi leen ñeneen ñoo xam ne mën nañu defar jeex amu leen ku ngeen indi kon bu ñu jëlee suñu yàpp ñu jël suñu deret ak ndox ñu dem ci benn docteur bi gën a lan la ci docteur ak ñu ne dañu waaw yow moom comme scientifique nga wala lan la savant la defaral ñu nit ñu laal ñu ngi doon ñu ñëwaat waaye naa paan yooyu boo ñëwaatee lu mu lay wax dama nga ci rey na ma ci ak xawaay waaye du la ne damay defaral nit kon yàlla moo defaral nit kenn defaral nit ci du yàlla mais nit yàllaa ko moom ittaqu rabbakum na ngeen moytu seen borom kan mu ne allazi xalaqakum ci leen bind kenn bindu leen pour ñu naan ci leen moom ah kon kay kii lañ war a ragal ki la bind moom nga war a ragal waaye di ragal ku la bindul di ragal ku la moomul ak di ko topp wala nga koy jaamu ñàkk fayda la ak ñàkk jom ak ñàkk respecté borom bi tabaraka wa taala màggal sa borom ngay màggal sa morom waaw moo tax tribunal bi gën a rëy tribunal bi gën a rëy ëllëg diggante nit ñi ak jinne ak yàlla xam ngeen lan la mooy bokkaale axluqu wa yubadu ay man yàlla maa bind ñu jaamu ko man maa defar maa defar sa doom bi yaa ko juróom sa doom wala sa doom yaa ko jur soo ko yónni woon nga génn nga ci mel am nga ci digg bi jëndal ma nangam bu mu demee ba ci digg bi ci digg bi ñu yéex a ñëw mu ñëw nga ne ko yow foo nekkoon mu ne la faa jiw moom mu ñu woon moo ne bu ma dem yow li ma wax naa dem moom li mu wax sa doom boobu noo koy def bu la jógee koy pet bu daa koy lu mu la def ah dama bàyyi seen yi non yow nga bàyyi sa borom jël jaamu keneen te yàlla petu la xoolalee ni mu la mettee kooku bu la yab jegee boo ko modu boo ko dóoree yab bi foofu lay jaar dem allah ñu ne la rey nga gis na gis nga ni mu la méttee li nga xoolal yàlla dund la nga bàyyi yàlla nga jaamu keneen allahu akbar moo tax yàlla mu ne tribunal boobu moo gën a wéy mooy bokkaal su ko def yàlla dina baal waaye léegi nag yéegalal niveau bi xam nga dama waxoon sa doom sa jabar nag nga jógee kii jàkka rek dañoo fekk benn waaye ndeysaan tëdd ci kaw lal bi ñu koy tëñee ci jënd nga ni waa kii kala ñu ne la kii moo aye tey ba pare nag ñu ne la kaay reen toogal ki ne xam lañ ko toogal di nga reer di nga reer sant ñun bi bu doon moom la nag dina reer ñu ne la toogal waaye ñu ne la toogal invité naa la reer kaay toog ndey ayda may ko indi ko kurtu bi ak kurtu saa di nga lekk mburu est-ce que di nga may waaj sax muy wax ak yow waa léegi nag yow ndeysaan te kii sa jabar kese la moo moo ko de juróo ko de jëndoo ko de xoole luñ la defee mënoo koo muñ foofu boo yoroon jaas wala nga yor kuuru roox wala nga yor su sale ngay def yaakaar naa waajooju bu yéexee daw dinañ ko fekk benn tànkam wala benn loxoom wala ñu fekk sa bopp bi mu tegu après nag yow nga dem gis gis la léegi nag xoolal borom moo tax nañ bàyyi bokkaale bokkaale baaxul ñu taal ko foofu rek ñii yow yaa leen yilif ñu boole la ak keneen nga mer ba def loo xam ne waroo ko def léegi nag sa borom bi la bind yow perfectewul sumu lay bind moom yow mu jaar ak yow fii yëpp wax naa leen dara deful nag léegi ba mu lay léegi kaw suuf ne la man doom nga war a jaamu nga dem topp keneen te mu ne la ittaqu rabbakum alladi xalaqakum fan mu ne min nafsin waahida ci benn bakkan laa leen jële yéen ñëpp nag yéen ñooñu ci kaw suuf ñëpp ñu ne mu ne ci benn laa leen jële mooy aadama min nafsin waahida ya aadama alayhi salaam benn bi dañ yàlla génn moo tax ñun ñu tudd moo tax ñu tudd doomu aadama mais xoolal léeg-léeg nga gis ndeysaan sénégalais yi ñoo réer léeg-léeg nga gis ñuy tagg benn nit ñu ne kii bokkul ci aadama de kii du doomu aadama kii du nit bu dul nit lan la man dégg naa fi ay kilifa diine yoo xam dañuy wax kii bokkul ci aadama moom ci yeneen aadama la bokk yeneen aadama yam yeneen aadama rek la yàlla wax ci alxuraan bi wala alxuraan gis nañ ci yeneen ñaari aadama ah man de wax dëgg yàlla ay bëgguma ko mokkalu ma alxuraan de waaye nag jiw naa ko jàng naa ko ba mu jeex waaye nag gisuma ci ñaari aadama gisuma ci ñett benn aadama dong laa ci te yàlla nee na aadama boobu yéen ñëpp ci moom ngeen génnee yàlla loolu lañu wax maa bind aadama ci suuf yéen ma génne leen ci aadama kullukum min aadama wa aadama min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko aadama moom ci la bàyyi ko aadama moom la yàlla bind ci àjjuma dugal ko aljanna bàyyi ko ba muy nelaw yàlla damm faaru góosam bi génne ci xawaa xawaa lu muy tekki waaye dañuy daw xisatul ambiya moo tax jàpp yi dañu di daw xisatul ambiya te xisatul ambiya tey ñoo ngi ci ci kan lañ toll ñoo ngi ci Muusa tàmbali nañ ci Adama ba ci Muusa li tax li ma question bi ma laaj xamu leen xawaa lu ñu dégg waaw ci ñu ngi dégg yow yow yow daa woo daw bàyyi gaa yi daw toon mooy lu ñu génne ci luy dund mooy xawaa li ñu génne ci biir dund yàlla mu ngi génne xawaa ci aadama après aadama ak xawaa moomu ñoo jur yëpp ci àdduna moo tax yi thèse yi ngeen jàng université du dëgg bi mooy lan doomu aadama ci golo la bàyyee dafa évoluer génn ngi dagg tàngaay bi wàññi kawar gi ci kii nii du dëgg ah man de man bàyyeekuma ci golo xaw ma yéen ah day day xaw ma yéen nag man de wax dëgg yàlla sama maam du golo yéen nag yéenay tontal seen bopp ñun de liñ jàng ñun alquran aadama mooy sunu maam ku d'accord sama maam golo la nag demal changé dina ko def toujours bëgg a jël nit ñi di leen gëm loolu ah doomu aadama golo la woon nangam nangam yooyu dafa wér golo kon kay xam ngeen ne adduna bi nu mu mel ni nit dina mos a jur golo waaye xoolal dégg goo ku jur golo nit ak golo duñ benn est-ce que est-ce que muus ak muus ak seeg bi du benn lañ mun nañ nuroo der de te xam nga duñ benn nuroo taxul ñenn nekk kon ñun golo bi suñu maam ñun aadama mooy suñu maam alayhi salaam yàlla moo ñu wax nan la bindee aadama yàlla bi mu bindee aadama ci suuf si la ko bind ci suuf si la tibb juróom-ñaari continent yi fu nekk malaaka bi tibb yàlla bind aadama mu tëral ko mu nekk set xasab su ma leen ko doon firil mu gaaw dama naan set soixante mètres soixante mètres guddaay sept mètres de yaatuwaay waaw leen di bëgg américain yi jaay parce que danañ jox américain yi soixante mètres la sixtiina zira xasab nii soixante la yàlla bind aadama soixante yaatuwaay bi ni ñaari mag bi ñaata la set guddaay bi tànk yi ba ci bopp bi soixante kooku minute bu ko bëggoon defal lal ban lal lay def kooku tey bu ko bëggoon ñëwal garaam bi wala pantala mais ñu mu gudd la soxalal yàlla tabaraka wa taala waaw yonent bi nee na ñun ñëpp noonu lañ tolloo yonent bi nee na bu ñu dugg àjjana noonu la ñuy toll noonu la ñuy toll bu ñu dugg àjjana loolu mooy cosaan yàlla daa di ubbi faaru aadama guut gàtt ci génn xawaa daa di ko koy may muy jabaram bu dugal leen aljana ñoom ñaar ne leen yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljanna wala taqraba hadihi alsajara fa takuna fa zallahuma alshaytanu anha فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعلمون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال بيقول لك على الجنة لك في الجنة ربي شيطان يوم نخ آدم الترخي سلوكه فآدم الترخي لن لك جرب يلا دق لن واتي لن تكوسو لول مو يجيني yàlla mu ne ku bëgg a delluwaat foofu jaamu rek borom bi mu ne ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha ci bakkan boobu la yàlla bind soxnaam wa xalaqa mu bind minha ci bakkan boobu zawjaha soxnaam ak jëf yoon kon nit ñi allahu kon nit ñi lan lañ bokk ñu ngi yàq ji kon luñ bokk ah kon est ce que war nañu noonu xoolal rek yàlla nee na kenn la muy aadama aadama moom laa génne soxnaam soxnaam ak moom ñoo leen jur yéen ñëpp kon ñun la lan bokk est ce que ñun ay noonu lañ war a nekkoon lan moo tax tey nit ñi tànn nooneel ah lu tax nit ñi tànn bañ bon bonante bañante ci xoolal li yàlla wax xoolal ñun ñëpp aadama mooy sunu papa awa mooy sunu yaay kullukum min aadama yéen ñëpp ci aadama ngeen ba kullukum la yonent bi wax ba pare na annaasu sawaasiyatun ka asnaanil nit yaa ayyuha nnaas daal loolu wax yi inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu inna akramakum inda allahi kon ci aadama moomu ak xawaa moomu la yàlla génne doomu aadama yi wa minha wa xalaqa minha zawjaha yàlla nee na ci bakkan boobu laa tàggate soxnaam laa ko bindee wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa nasara wa farraqa fil ard min aadama wa zawjihi rijalan wa nisaan kasiira yàlla mu ne wa basta dama tasaare ma génne ci ñoom ñaar ñooñu aadama ak soxnaam ay góor ñu baree bari ak ay jigéen ñu baree bari ci ñoom ñaar ñooñu kese la yàlla tasaare àddina bi ay nit nan la woon aadama day jur ñaari feex su juree ñaari feex yi beneen yoon mu amaat yeneen ñaari feex ñu daal leen di juuyale ku góor gee takk ku jigéen gi ku jigéen gi takk ku góor gee loolu la aadama ji su ngeen delloo sifatul ambiya di ngeen gis aadama ñaata doom la am feex ñaata ñaata biir la xaw a am doom mu nekk ay feex di ngeen gis doom bu mujj bi lan la ndax moom feex la wala du feex ak nan la tudd bu ngeen delloo ci sifatul ambiyaa yi mbokk yi yàlla bind na aada Hawa ci faaru càmmoñu aadama lan moo tax yàlla jëlewul xawaa ci bopp aadama lu tax yàlla génnewul xawaa ci tànku aadama li hikma yàlla bindul jigéen ci kaw bopp góor kon di ndaw si day soot sa bopp nekk sa seet nga koy jaamu mu def la jaam yàlla bindul jigéen ci tànku góor kon góor day nappaaje jigéen def ko jaam waaye yàlla def ko bind ci sa wet ci sa wet da mun lay dénk xale dañ naan na nekk sa wet buñ lay dénk kenn dañ naan na nekk sa wet ah soo doon fal kenn mu lay jàppale ci liggéey da nga naan kii laa jël mu nekk sama wet ci jege la sa wet lépp lu nekk sa wet yërmande da ciy am ba pare paaru góos la yàlla wax ana seen góos ku nekk tegal sa loxo ana sa góos lan ma fa nekk ci paar bi xool lu tax ñëwul paar droite parce que xol bi mu ngi ci góos bi ñu bind ko ci paaru góos ndax mu jege xol bi allah allah allah ndax nga bëgg ndax mu nekk sa xol am naa sama benn papa boo xam ne bu may wax naka sa soxna yi ndax naan ma ana sa ruux ak sa xol ay na ruux wal qalb la may wax ay na ruux wal qalb jigéen loolu la nekk ci yow wala ci faaru góos lañ ko jëlee faaru góos la moo fa nekk xol moo tax téyeer yi buñ lay ñëwal poos fan lañ la koy defal poos bi suñ koy def ci góos moo tax boo ci defee xaalis waaye ñu ne sa ngir yàlla nga dugal iblis mu neen defal alal
defal attention defal attention ci weex yi nga naan loxo bi ñu naan sarax ngir yàlla nga naan ko waa taxawal rek xaaral xaaral boobu dugaloo rek génne ci biir loolu waaye même booy joxe moom man bu joxe mais nga walaa kaane loo xam ne yaa ngi naan xool juróomi dërëm wala ñeenti ñaar dërëm wala dërëm fekk ay deux cent cinquante mu ngi foofu cinq cent mi ngi foofu yenn saa yi sax nga nga dugal baaraam baaraam bi di xoos di xool cinq cent la wala wala dix franc la baaraam bi di xoos bopp bi naan ni xam nga bu dee cinq cent wala mu nekk deux cent cinquante wala mu cent franc day def lan day def crise crise crise ah allahu akbar gis ngeen fii lañ la koy defal par par gauche li nga gauche fi lan fi la ko yàlla génne xawa pour lan pour mu jege la mu nekk sa xarit mu nekk sa soppe au lieu mu nekk sa mbaam jigéen nekk sa mbaam au lieu mu nekk sa déedéet dafa la war a jege sa xol parce que ci sa xol bi lañ ko génnee mu jege la di la jàppale ndeysaan loo bëgg a def nga waxtaan ak moom waaw mu lay indil ndox ngay sangu di la toggal lekk ngay lekk mu jural la say doom di leen yar moo tax yàlla bu muy wax wa min ayatihi déglu leen aaya yi de moo tax ñun dañ naan alku naa leen ko dañ naan alku parce que dañoo bañ a dégg alquran dañ ko mën a jàng wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan aaya boobu moo gën a garaaw ci aaya alquran yi ci aaya yi wax mbirum sëy si yàlla lan lañu wax fii ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min feemu nañu rek bokk na ci kéemtaan yi yàlla def an xalaqa lakum min anfusikum bokk na ci kéemtaan yi mooy seeni soxna ci yéen laa ko génnee azwajan ñu ne yàlla mu ne li taskunu ilayha ngeen ngeen mën a am ci soxna yooyu ak dal dal soxna yi di leen dalal boo doxee ba sonn nga ñëw mu ne nijaay lan la nga ne ko dama sonn mu ne xaaral ma ñëw daw jël ndox jël serviette ah jël ndox sotti ci parfum ba mu xeeñ yóbbu la ci douche bi tegal la sar tegal la saabu tegal la bu mu ne sax ma ñëw sang la nga ne noo garaaw mu ne noo ñëw xaaral rek bu la sangee ba pare rek nga fiix coono yëpp dañ fekk da nga fanaana yenu saaku ciment yenu nga quatre cent cinquante saaku ciment mais yëpp fàtte nga ko coono bi dem na billaahi coono bi dem na li nga bi soxna si bi mu la ne ma ñëw sang la rek coono bi dem na mu ngi ne de bu la sangee ba pare nag da ngay mel ne ku yenuwul woon saako si ba ku la ne waaye foo yenu da nga daan wax jow affaire bi dama ko dóor mu daanu fekk bi ngay ñëw munoo woon sax siggi yàlla moo wax dëgg wallahi yàlla moo wax dëgg li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatun wa rahma yàlla moo wax dëgg moo tax biñ bàyyee diine lañ alku biñ bàyyee alquran wallahi ji ko jàng nii rek wala ñu dund aaya yi di ko jàng nii ci kaw am problème borom bi tabaraka wa taala mu ne wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa man yàlla maa leen bind génne leen ci ay góor ñu baree bari ak ay jigéen mu ne wattaqullaha gis nga mu répété waat baat bi lan la ko tàmbalee woon ittaqu rabbakum wattaqullaha ragal leen yàlla alladi yàlla mi nga xam ne tasaaluuna bihi ci moom ngeen di laajcant tasaaluuna bihi ka qawli rajul li axihi asaluka billahi an tafala lii kaza wa kaza ni ngay waxee ni benn waay maa ngi lay ñaan ci yàlla nga defaral ma nangam ak nangam loolu mooy aaya bi wattaqullaha ragal leen yàlla alladi yàlla mi nga xam ne tasaaluna bihi moom ci moom ngeen di laajte gis nga tey benn waay bu buggee nga sarax ko lu mu lay wax ngir yàlla jox ma ngir yàlla maa joxoo ma ngir sa bopp yaa ngi may jox soo ñëwee ci benn paa di labab doomam loo koy wax maa ngi lay ñaan sa doom bi rek ci ngir yàlla nga may ma ko booy jubale ñaari nit lay wax damay lay ñaan ci ngir yàlla rek nga bàyyi lépp loo jàppoon nga jubóog diw gis nga bu la waxee loo rek sa yaram daw attaqullah allazi tasaaluna bihi nga dégg wallaay bu doon waaji lim wax man xaw ma nu ma koy def ndax daf maa ñaan ngir yàlla nga ñëw fekk waaji taxaw nga ne ko ngir yàlla mu taxaw dugal loxo ci poosam génne jox la nga stopé kenn mu yor otom nga ne ko doo ma yóbbaale ngir yàlla mu ne la yëgal ngir yàlla benn waaye dafa am alal bu bëri mu tabax ci wetu kaa mu tabax mu taxaw ci wetu kaaba gi am ku ñëw di yelwaan ne ngir yàlla mu jox ko waaj ne ngir yàlla mu jox ko waa ji ne ngir yàlla mu jox mu ne yow ñu ne ko yow yow kii rek la benn nit bi ngay jox rek mu ne déggoo li muy wax ngir yàlla man kay comme yàlla mu ngi ci yàlla boole yàlla moom ku ma laaj yàlla ma jox feeg bàyyiwul ngir yàlla man li ma koy jox du dagg kooku dafa xam ngir yàlla ngir yàlla wattaqullaha ragal leen yàlla allazi yàlla mi nga xam ne tasaaluna bihi ci moom ngeen di laaj wal arham ak seen mbokk mbokk gi gis nga mbokk gi dañ ko war a sàmm nit dafa war a sàmm mbokkam nit est-ce que am nga lu gën say mbokk ah rawatina nag say mbokki jullit te mbokk ñett la mbokk boo bokkal diine bokk ak moom kër bokkal moom deret mbokk boo bokkal diine bokk ak moom deret mais dëkku leen mbokk boo xamante ne dëkk rek ngeen bokk ñett yëpp da nga ko war a sàkku kee ñett la ak kii ñaari ak ki benn ak mbokk yi borom bi nee na inna allaha yàlla kaana mustaday aleykum ci yéen raqiban di leen fuuglu di leen sàmm kaana ci alquran boo koy firi bul wax nekkoon na de dégg ngeen li ma wax kaana yi ci alquran yëpp nuñ koy firee mustadañ boo ne nekkoon na mooy ça veut dire que kaana fiilu maadi la yéen ñu jàng arab paasa na tey suñu ma doon wax kaana man kaana nekkoon na la ñuy wax kaana nekkoon na Abdoulaye Wade raisu Sénégal Abdoulaye Wade nekkoon na mais léegi nekkatul kaana nag inna allaha yàlla kaana dañ naan nekkoon na mësta deñ aleykum ci yéen raqiban di leen sàmm yàlla mësta deñ di ñu surveiller surveillance raqib moo tax borom xooy ne isa xalawta yow man boo wéetee bul wax wéet naa waaye qul alayya raqib waxal am na ku may surveiller ar raqib mooy al hafiz mooy ku lay sàmm al azim ku mag wallahi bul wéet ba defe ne da ngaa wéet am nga ku lay gis de am nga ku lay surveiller te mooy yàlla tabaraka wa taala kon inna allaha kaana alaykum raqiba sayid xawa rahimahullah nee na bu ngeen jàngee alquran aaya yi buy daanu bàyyi leen xel aaya yi bu muy daanu lan la yàlla wax ci aaya bi yàlla nee na maa ngi leen di surveiller mbokk yi ku ku oxy auxiliaire gendarme auxiliaire ah gendarme doon surveiller sax ndax di nga def lu bon gendarme bi ci boppam nag ah tontu leen ma de mun la boole woon ak gendarme mu lay xool ndax di nga jubal wala da ngay dëngal waa léegi nag chef gendarme bi nag bu la ne gars yi doy ñu ma man maa doy sama bopp yow maay ñëw ci yow nooy def da ngay normal chef kooku nag ki chef kooku nag léegi nag yàlla mi nga xam ne mooy chef ñëpp mu ne la inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla nee na maa ngi leen di surveiller sama bopp kon loo war a dégg war nga jub wala waroo jub war nañoo jub wala waruñu jub ndax war nañoo nekk ci lu ñaaw ndax war nañoo nekk ci safaan ndax bu nu saytaane nattoo sax ñu dugg ci loolu waruñoo tuub yal na yàlla def ñun dégg ak topp loolu mooy darsu tey asalaamualeykum wa rahmatulah